yërmande mm-hmm. la war noo kii doole tuba la war na noo kay jégale ila dëkk may te ñaanoo mooma ila mm-hmm. mën mm-hmm. a lit ta jeemoo sañ na ila kawe lit ta yeegoo kii la ila xama lit ta jàngoo waaja di la dëkke aarte kooka sëriñ Saaliw rekk sañ di yàlla Mbàkke goreel noo ci yow teenu fa soron xay ga di la way ba dee nooy ki bañ feneen moom nganu du tay booba ñu newoon bale moo waral fu waay jébalu koo mën a ram loxom baay nangu yow murit bi wëril saw njariñ ñaan ci ndimbalam ngir di nga daje ko yor lee waral fu jaar way la fu nu jaar kañ la ndeke yoo yow la kii jëfam na bul xam nga seexal leer na ki waral mbir yaa sant fi des nag ak jariñu lépp mat na jërëjëfe yaw mi ko jëf waral gi de yow la ku fi masa woote sa ñoñok ku nangoo jóg yow mi yërëm bon gi arkacoor gi xamoo cam yërmande yow la mbàkke te nga nu caw nu peese sunuy jëf ak bon ëpp ñu dugg naari ar nga sunuy jëf yow ñagal nga sunuy wax kenn du layoo yaay ki ëllëg du nu xool jëw saa bu jitoo nekk nu mbàkke moo bëgg jaam ñi mbaadu cofeel googa yàlla ni toon ruu kum ci gisul dëpp jël la wax ji delus na mbaadu kamay junju xel yi neex yi ne mooma duma mësa réeroog yéen na jekk tawaaj mel ni kooka dootu fi feeñaat julli nga jullil nu wóor nga it waral nu yoolu kabar taxul mu sànni der ba ca géej ga rammu nga géej jéeri jit muccu nan yow Ya dindi laj laj woon ba tax sunu xel dal dunu gis malik xet wayit ku la sopp yaay jeli saw ñoon ci rew yi fu mën faato bo ñewul won bakke bal kon pexe jeex fi ku mën doon ken du ba do nuyu malik malik gu niiraani moy ko yor safaram sa boko doyna rek mbugal ngir melom wa te nga ñuy tar sirat ci yoon wu lëndëm wa sew ba na lii doo ko gis ku daanu sa kër la mbàkke jégal nu oo oh, sermande rekk fi sa si yow sëriñ Tuubaa nga musal nu tuub delu war la tawasulu dëkke sellal sàkk sarax ngir jëmam ja jox ña ko yelloo yéenente jàmm ngir soxor duma tee dem yàlla ba muy woote raw iñaan dafa ndaare yéenente jàmm ngir soxor duma tee dem yàlla ba muy woote raw iñaan dafa ndaare jéema soppi kenn deful kenn leen moo lu fi waay def boppam sëriñ bi defar na yàlla nu doon ay murit ta doon yi booba sëriñ saaliwu nangul di ko dolli yàlla nu doon taalibey sëriñ bi sax ci guñ nangu yi taalibem nga mbàkke yi wël nu bañ lu lëndëm bon ñaaw ñu ne la yaay li rafet sell gën te neex a nangul nag